fan yi saw hmm. lañ dicté waxam waaye ko vraiment de. pourtant yow mii yow lal ba defoon nga fa ay gannaaw kër de. waaw léegi kon yow gannaaw kër benn yoon. gota ah gota benn yoon. gannaaw kër. benn yoon gannaaw kër moo raw saw yi ma numbe gannaaw kër gis nga ko ni mu bëree te yow xam na ni say gannaaw kër day nangoo bari euh, nee na dangay saw lal ma bëgg booy tëdd ngay dem ci douche bi saw ba nuppi soog a tëdd. moom mi moo sawlal bi ba pare nga naan man damay doy sawlal et puis xoolal loolu bu ko waxaat non dama wax rek loolu bu ma ko ma ne waxal daal ma heure bi nga naan ay sawlal ak ay yu kenn xaw bul ma waxaat loolu yow yow yow yaa ma yow waaye ñàkk yobu ma affaire saay yi mu def dafa mel ni bi muy saw dafa jóg sawaay sama tubéy bi yëpp ah li mu toy xel non la naa la la naa la maa tay léegi sax man la maa maa maa maa sàmm maa maa tay la kon looy boole. dara njëkkantu. jógal ci biir. di seetaane nga rek. waay hmm. waay ñaan ko dama tëdd sa nekk waay. ay ma waay waay waay yow wooroo wooraanoo ah loo dégg del dégg waay doo doo dégg seen fokkul bënn lan la saa dafa newoon jugu fa waaw sama ñeenti téeméer waaw ma teg ko ci kaw bopp la waaw ñu ne ko jëmpet jël du yoon xam nga ku ko jël du yoon waaye dina génn yow ndax yow yoroo dara maa dem sama benn càmmiñ may ma ko pour ñu ndogoo ko xaas bi day génn ci nii maa mu génn ci naa ñaar soo ko yoroon jox ma ko yow yoroo ko di eh eh jugal sama ñeent téeméer day génn ci nii maa mu génn ci naa balaa dëkkandoo yi di dégg sama yoon nekku ci dëkkandoo sama yoon nekku ci dëkkandoo boo xamee na ngaa dëkk say dëkkandoo da ngay yar say gone yar sa loxo ak ku mënti doon sama doom yi dina génn tey ci kër gi doo wax nag waxal nag waxuma nag ni waxuma nag dépense bi tey maa ko joxe waxuma nag dafa nag ñeenti téeméer def loolu yow ñànku ñànku da ngaa duggoon sa néegu yu baat ah waaw léegi ah, gisoo fa deux mille ñaata saafara la koy deux mille deux mille deux mille ñànku këyit la kii waaw du maa ngi léegi ñaari yoon waaw dama doon naan wene sax égaar laa doon fekk gisuma sax ma génnaat sa égaar nga doon si waaw gisoo deux mille. gisoo ko sax. lan nga am sama néeg ba fay dugg. Eh, eh, eh, waaye may may dama ne la sama xaalis day génn ci ni ma am génn ci naa ma ci dara. man nga maa may ma régler problème bi waa war a dee. yow da ngaa yoru. dinaa ko régler. régler ko ma yoru nit mën koo régler. man lu mbee. baal ma waay. mais tey sama xaalis dina génn ci nii. waay defal naa ci kër gi tey. waay waay deux mille tey bañu ma ci dara. Ah. koy laaj ah. yow moom bul di wax. Ah. kenn mënu si noppaliku. la la bu taxaw nii sama kanam ñëwal nii ñëwal nii mën lu be mën lu be. ah sa nekkul umpaañ da nga faa duggoon. waaw. waaw waaw. waaw dugg naa fa sax sax dugg naa fa. waaw naa ah? fa 2000. 2000 waaw. 2000 fan lañ ko tegoon ban côté. fan ko lal bi laa ko tegoon. ah demoon nga àgguma si bopp lal bi. Eh, sama yoon nekk ci dugg nga ci nekk bi dugg nga fa. 2000 ci bopp lal bi laa ko teg. kenn laalu ko ñun ñett dong nekk ci biir kër. waaw waaw kenn juróomeelu ñu. waaw sama 2000 day génn. ci nii mbaa ci naan. waaye defal la nag lu ci waay bañu bi. ci bopp lan bi. waaw lan nga ko tegoon. waaw loola. waaw loola. moo gis nga ko de. noo xamee ne dafa bula. eh gis ñu gis ñu 2000 de. ko léegi loo def ba ne 2000 bu bula la. maa ngi dugg ci biir kër gi doo am jàmm tey. gis nga deux mille yi. la wax deux mille jarul loolu deux mille jarul loolu wuy leen ma. Eh, ah eh, wuy leen ma leen ma foto ku ci yor deux mille na ma ko jox. yow yow di jaay di jaay xoolal di jaay yow yow yow ñun lan la naka la ñuy wooree ba heure bi di sàcc ay deux mille. yow da ngaa war a wax ndànk. waaw ba amul wax ndànk dara kii lan ñuy wax dafa métti nan ngay wooree ba heure bi mu lay jël ay sàcc ñun da ngaa mos a sàcc fii suñu kër bàyyi la mosuñu fi jël saala mosuñu fi manqué dara ngeen ne fi dañuy jël ay sàcc deux mille rek ay kër xamul ko a laa wax génnewuñ tus bu dee ñun la jël ñu sa 2000 sof bi be ko dee ay jaw ay 2000 2000 ñun nan la ñuy wooree ba heure bi naan dañuy naan dañuy sàcc ay 2000 dañoo faale 2000 ñun ñun ñoo mag 2000 foofu. yow yow yow yow ku jaw lan moo tax mu naan ma ku nga ma naan ma ku réew nga bu ma waxaat ku réew nga de rus naa la ni gaay jógal jaw boo ma dóor a teeg way jaw am na lu may sedd wóor na yàlla am na lu may sedd ci am na lu may sedd nga naan ma ci biir rek nga dugg ko suuf rondal gisee nga mel ne ku koy seet ñu seetandoo ko nga gis ko dégg. génn génn génn génn. ah génn génn génn génn bu jàpp génn